زر من تحيل وإن شط بك الدار وحال من دوني شغل وأوار زر من تحيب وإن شط بك الدار وحال من دوني شغل وأوار لا يمنعنك بعد من زيارتي لمن يهواه سواء أعوذ بالله بسم الله وما توفيقي إلا بالله barke Borom Tuuba barke Borom Tuuba barke Borom Tuuba jaaraahima moom Cheikh Ibrahima Fallam mbokki internet yi mbokki taalibe yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen jox itam seen wàccuwaay di jiital ci nuyoo beeg siyaar bi alxalifatul Cheikh Cheikh Mamadou Muntaxa di ñaan saa borom yàggal ko fi loolu tam àndax wér ba lépp loo xam ne naalal na ko maam ju baax ji saa borom defal ko ci lu faw xaay njortam mu ànd seeg mbooleem mbokki taalibe yi naka noonu ñu ngi ak siyaar Serigne Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda di ñaan saa borom yàggal ko fi lool ay kaddu yu cant ak yu nuyoo itam nga xam ne Serigne Saliou Touré ñaan saa yàggal ko te woyefal yéen wi nga xamante ni yéene na ko ak liggéey bi mu sumb moom ak mbooleem yi rakkam mu mel nii tey ñu ngi si bésu siyaar bi nga xamante ni dañ koy faral di amal fii ci kanamu Serigne Saliou Touré ak dongo yi nga xam ni ñoom féete fii ci kër gi ren nag nekk si édition bu spéciale ndax moo war a nekk suñu première siyaara ginnaaw bi sëñ bi bàyyi ko kon rek xam naa ñu war a ànd ak waa commission culturelle ngir mën a amal ab waxtaan kon dañ leen di jox rek ñoom ñu dugg mën a nuyoo laataa ñuy dugg si li nga xamante ni moom mooy sujet bi nga xamante ne la ñu war a waxtaanee tey bisimilah jawrin Malick auzu billahi min asheytaan irajim bisimillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wasalla abada ala allazi bihi lana huda bada sayiduna muhammadin wa ali wa sahbihi zamina walil wali asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu baax di leen ziara di ñaanal si nuyoo bi Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha saa borom bàyyi mu yàgg lool ba lépp lu mu rek ngir liggéeyal ko maam ñu tëdd ma def ko ni ko bëggee naka noonu la ñuy ñaanal sëñ Modou Amdi Menda di saa borom bàyyi ko ba mu yàgg lool ba lépp lu mu naat rek ngir liggéeyal ko seen maam ñu tëdd ya ñu defe ko ni nga ko bëggee di ñaanal it ah, ah, Cheikh Salif ture mi nga xam ni moo ñu dajale si si barab bii nii di ñaan saa borom ah, yokk ay leeram te yokk ko ak njégal di ñaan yi nga xam ni Cheikh Bamba Touré mi nga xam moom moo ko nekkal fii si diwaanu Thiès di ñaan saa borom kàttan ko loo xam te naan la ko ngir liggéeyal ko maam ju tëdd ja mu def ko ni mu bëggee di nuyuwaat bokk taal bi yëpp di leen ziar rek mu mel ni commission culturelle bu fédération ma ñu ko nooree ñoo daj woon fii nii di laayante ay bi ak biir ndax ay mbokki jullit fu ñu daje war nañaa laayante bi rawatina ay mbokki taalibe waaye tey dañuy jël thème boo xamante ne rek moom moo euh, moom moo tënku ci li ñuy wax njariñal xam-xam thème bi moom la wax njariñal xam-xam ndax euh, buñ mënoon rek maam solo si solo si nga xam ni moom la euh, solo solo xam-xam si doomu aadama bi ndax buñ nee yoonu murid rek maanaam yoonu xam-xam la ndax ki nga xam ni moo ñu dajale fii mu Serigne Touba maanaam moom yoonam da koo tënk ci xam-xam moom dani bii ma xelloo ba tey mosuma daj di sàkku xam suñu borom nga xam ne moom lay wax naa walam walam azaltu mun si jazaltu xaayit walam azal mun si xaqaltu taaliba maxfiratan billahi jalla xaariba bi ma xelloo ba tey mosuma denc sàkku xam suñu borom kon looloo waraloon maanaam ñu jël thème boo xam dañ koo tënk ci euh, njariñal xam-xam kon maam njëkkanteeg waxtu bi rek maanaam euh, keesoo bu njëkk mi nga xam ne moom la ñu mooy solos si nga xam ne moom la xam-xam am ci doomu aadama yi xam naa dañuy bàyyi sëñ Mouhamed moom bu ñëwee rek ginnaaw bu mu nuyoo mu fexe ñoo euh, indi indi laay leeral ci laaj boobu noonu bisimilah naqulu baada al ibtida bil basmala walhamdu wasalaatu summa alxawqala aoudu billahi min alcheytan arrajim wa inni aidaha bika wa durriyataha min alcheytan arrajim rabbi aoudu bika min hamazati alchayatin wa aoudu bika rabbi an yaxdurun bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursalin sayyidina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi dhawi ridwani wattamkin wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin wa radiyallahu an sheykhina wa wasilatina alcheikh ahmadou bamba xaadimu rasul mbokki julliti bokki taalibe yi ginnaaw bi ñu subhaanahu wa taala julli ci yonantam bu tedd ba di rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sant suñu yaakaar a Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ñoo di nuyu ñoo jullit ak mbokkam jullitam ñoo taalibe ak mbokkum taalibeen te mooy nuyu islaam di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di jël nuyoo bi di ko teg ci loxal Serigne Khadim Touré mi nga xam ne moo fi teewal Serigne Salihou ture yàlla na yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem ndax alquran day wax ni waatul buyuta min abwaabiha kuy dugg bëgg sa dugg jag da ngay jaar ca bunt ba di sant bu baax a baax. sëñ Malick mu ubbi léegi doon wax thème bi nga xam ne waajal nañ ko ngir fàttalante si ndax ay jullit waxuma ak ay murit fuñ dajale fuñ dajaloo dañoo war di fàttalante ndax alquran ma ne fadkuruni adkurukum washkuruni wala takfurun yàlla moo ne na ngeen ma fàttaliku bu ngeen ma fàttalikoo dinaa leen fàttaliku ngeen may sant bu leen ma weddi kon lool rek moo waral suñu kàddu yi mu junj li nga xam ne ci la ñuy fàttalante te mooy ahmiyatul ilm wolof di ko wax njariñal xam-xam français di wax l'importance du savoir kon ci loolee lañ nar a fàttalante mu souligner point bu am solo ci solo xam-xam am nga xam ne doy na rek ci xam-xam lu ama am solo la mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ni am na ñeen fukki at daan dem ci xunti ma di fa wéetal boroomam ngir sori caaxaani arab foofee ba ko fa jibril fekkee ngir jox ko yonent bi yàlla bi muy nubbu nga xam ne moom la yonent solo la ko wax day def xaar ba cri bu pensée critique donc ñoom li ñuy xalaat mooy nit ki lu mën a wax faaw ñu càmbar ko ba jot ci la nga xam ne mooy dëgg dëgg foofu nag moom lañuy ñuy woowee savoir mooy xam-xam kon dëppoo nañ ci iqra ñoom ci jàngal waaye dal la ñuy jàng lañ lan wuute mooy bismi rabbika alladi xalaq mooy sa turu boroom nga xam ne loolu mooy jiitu ci ab jullit mu xam loo lan mooy farataam doy na ci tegtal itam alquran daa wax ne inna la fi xusrin illa alladina amanu maa ngi giñ ci ne nit ñëpp perte nañ ba mu des ñi nga xam ne dañoo gëm di dénkante dëgg tey dénkante ak muñ ñu gis ni loolee lépp muy jëf lu baax ak di dénkante dëgg ak dénkante muñ nit ki su ko jàngul mënu koo xam kon ñu gis ni ku amul xam-xam rek ak pertaange da lay waaye tam ba tey alxuraan di wane solo si xam-xam am day wax ni innama yaxsha allahu min ibadihi al ulama yàlla day wax ni ñi gën a ragal ci yéen ci jaamu yàlla mooy borom xam-xam yi kon xam-xam moom mënta ñàkk ci nit moo tax sëriñ bi doon wax ni jëf ju ànd ak xam-xam moog pënd buuru ñooyam iskulla amilin bila ilmin yura fa saayuhu mithlu haba in nusira nee na jëf joo xam ni ànd ak xam-xam moog pënd buuru ñooyam kon nga gis ni jullit bi li ko war murit bi li ko war saa mooy mu gëstu kon war na ci jaam bi mu jiital xam-xam soog a jaamu yàlla ba tey itam ba tey solo si xam-xam am moo tax yonent bi sallallahu daal di wax ni man yuridu llahu bihi xayran yufaqihu fi diin képp koo xam ne yàlla namm ci moom aw yiw da koy déggloo diine yonent bi sallallahu alayhi ci la mu waxoon ni ida maata bnu aadama yanqatiu amaluhu illa man salaasa doomu aadama bi su faatoo jëfam yëpp day dog yi mooy sadaqatul jaariya moo xam daa jëmbatoon garab nit ñi di ci féexlu moo xam daa bënn aw teen nit di ci naan nee na loolee ko naan rek yiw woowa da koy fekk ca biir bàmmeelam waaye xam-xam bu fi bàyyi al ilm xam-xam boo xam ne bàyyi na ko fi doon ko jàngale nit ñi ji di góorgóorlu bu baax a baax di ko jokkalewaat kem ko jàngal kum ko jàngal kooku da cee am yiw waaye jëf jum ca jëf yi kookee ko bàyyi woon fi da cee am yiw waaye itam waladun saaliha muy doom joo xam ne doom ji baax la di ko ñaanal ndax sëriñ bi doon wax ni isid doa yanfau maytan fil qubur wa yanfau alxaya wa yujibul ujuur ñaan day jëriñ nit ci biir bàmmeelam di jariñ kii dund waaye di waral aw kon ñu gis ni xam-xam moom mënta ñàkk ci nit moo taxoon sëriñ bi doon wax ni fa saariu turran ila taallumi wa nufusa bi tafahumi daw leen gaaw jëm ci xam-xam seen bakkan ak dégg kon ñu yamandi foofu rek bàyyi suñ Malick mu andi beneen point bi kon sëñ Malick bismillah waaw ah, jërëjëf sëñ Mohamed ci leeral yu am solo yooyu kon ginnaaw daal bu ñu mënee tënk daal li nga wax rek mooy maanaam solos xam-xam ndax ngëm moom maanaam cëslaay la mooy xam-xam ndax suñu boroom moom dañuy eh, xam leen na laataa ngeen may jaamu kon maanaam eh, jaamu ci kumba loolu Euh, njuumte la kon maanaam duñ fi mën a dégg rek kon maam nañu gën a fonkaat xam-xam te xam ni comme ni ko Cheikh Mouhamadul Mountakha di waxee xam-xam maam maam jombul kenn bépp murid rek maanaam war naa jug maanaam jàngiwaat xam-xam te wan wan nañu ko rek ndax boo demee ci Touba Gueye université bi mu fa tabax rek toll ci 37 milliards lépp rek ngir maanaam waxuma la murid waaye julliti gën a mën a dem euh, gëstuwaat xam-xam kon ñoo ngi jaajëfalaat euh, sëñ Mouhamed ci point bu am solo woowu ginnaaw point bi mooy dañuy jëm si ginnaaw bi nga xamee ni euh, am nga xam-xam ba noppi maanaam xam-xam bi ban jubluwaay nga si am ban jubluwaay nga si am moo xam nit mën naa jàng xam-xam maanaam fas yéene koo jox te yàlla rek tax wala nit maanaam jàng xam-xam ba noppi jël doole xam-xam boow noonu di ci xeexee ak yeneen yu rek yooyu kon maanaam ginnaaw bi nit bi nga xamee jàng na xam-xam ba noppi xam-xam bi ban jubluwaay la si am moo xam jubluwaay bu baax la wala jubluwaay bu bon jërëjëf boobu di wax ne gannaaw bi nit ki jàngee ba noppi ban jublu laa am la ci am waaye loolee dañuy dellu ci mbindum sëriñ bi nga xam ne doon na dénk ñi nga xam ne jëm ci xam-xam doon wax ni yaa ayyuhal ghaadi ila taallumi haaka wasiyati waraa kallimi yow mi nga xam ne yaa xëy jëm ci xam-xam jàppal sama dénkaane yi te na nga sàmmonteeg sama baat yi bu baax a baax a baax li waji rabbika aqsudi taalluma takun surural awliya wal ulama booy sàkku xam-xam bu ko sàkku ngir puukarewu bu ko sàkku ngir nit ñi ni kii daa bari xam-xam bu ko sàkku ngir nit ñi di la teg fu kawe waaye sàkku ngir sa jëmmi borom. moo tax mu ne li waji rabbika xsudi taalluma soo ko defee takkun surural awliya wal ulama di nga am mbégteel mbégtewu wàlli waaye di nga am mbégtey borom xam-xam la laa tatlubam mujarrada riwaaya bal dumma ilmaha ila diraya sëriñ bi nee bul sàkku xam-xam bu ñu neenal ci ay nettali rek baay diw nee na ma jële naa ci baay diw toog naag baay diw sëñ bi dee nee bul yem foofa nee na boole koog téere xam yi nga xam ne moo lay xamal sa diine waaye laa taqsud istimalatal wujuhi lakka la daa bat ika za tawjihi bal uqsudil xuruja min dalali wa ismatan min darari illali nee na bul sàkku xam yi tam ngir bëgg nit ñi daw jëm si si yow di jàng si bul def loola ne sàkku ko rek ngir génn ci réer ak mucc ci réere la teg ci mahma talabtal ilma aw siwaahu lin nafsi wal maali wa ma tahwaahu fa baata bidduniya idan oxraaka fa firra min hada mata taraka saa soo xamee ne sàkk nga xam-xam ngir alal wala bànneex wala bakkan jaay nga àdduna ci àllaaxira ne loolu gaar na la rek nee na dawal bu baax a baax a baax a baax kon la mu doon waxaat te kun kaadiman ñëwaat na laa tastari dunia bi uxra yaa fata man baa nuuran biddu jaa fasa yendamu bul jëndee àdduna ci àllaaxira ndax ko jaay ak leer jëndee ko ak lëndëm ëllëg di ko rëcc waaye nag saa soo xamee ni nit ki daw na jëm jàng ci yow ngir jàng si sëriñ bi nee na nangoo ko xamal amma ida tawajjahat quluba man asartahum ilayka min ahli zaman min gayri qasdika fa allim man tara ilayka taaliman yakuful batara saa soo xamee ni nit ki jàng na jëm si yow ñi daal bëgg a jàng xam-xam na ko xamal sa kéem kartan looloo waral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon ñu dénk ni ballighu anni walaw aaya na ngeen jottali sama wax donte aw aaya la waaye tegonte ni li yuballighu shahida minkum ghaiba na ngeen jottali yéen ñi teewoon booy wax xam-xam ñi ko fekkiwuloon loon nangeen leen ko jottali kon nga gis ni kon solos xam-xam dëgg-dëgg mooy di ko dund bu baax ngir sa jëmmi borom waaye itam di ko jottali ñi nga xam ne sëriñ bi doon wax ne koo xam ne lakk nga xam-xam te jëfewoo ko yaag mbaam mun safiré yéen a yem wa man xawaa ilman walaysa yamalu bihi fa innahu ximaarun yaxmilu fala ilmu wala amalu jawharaani li xayri yaddaareni yatlubaani ku sàkku xam-xam te jëfewoo ko yaag mbaam mun safi téere yéen a yam daan ne xam-xam ak jëfe xam-xam nag ñaari wurus la yoo xam ni dañuy ñaari yoon la yuy xëccee jëmee ci ñaari kër ya kon nga gis ni nit ki li mu war a góorgóorlu mooy lépp loo xam ne toll na ca mu xam ca lan mooy farata ak lan mooy sunna mu jëm koo jëfe ndax bu ñuy wax jàng xam-xam rek ñu bari jàpp nañ ni mooy jàng téere yu baree baree bare bari loolu fardul kifaaya bu ko ñii defee mu wàcc ñii alquran mokkal ko bu ko jullit yëpp maase woon bay jullit yëpp maase am bàkkaar waaye bu ko kenn defee mu wàcc ñëpp kon fardul kifaaya la waaye nit ki war naa daa war ci moom nekk ci awloosam lu muy def wante lan farata ak lan mooy sunna sëriñ bi ba muy nettali ki nga xam ne daa dugg ci julli andi gën gaa rafeti melo si jooti mat rukon yi mat mu pare ñu laaj ko lan moo ciy farata ak lu mooy sunna xamu ko ñenn ñi julli gi wérul ñenn ñi julli gi wér na waaye mu andi position boppam xultu waqad xarama rabbuna ala kulli mukallafin ala ma nuqila fi'lan bi gayri ilmi xukmi sharci fada nassu dalilun qat'i man kaana jahilan bi fardihi wa lam yas'al fa nafsuhu abada wa dalam man suñ tubaa wax naa ne suñ borom xaraamal na ci mukallaf muy jëf jëf jummanta doon te xamu ca attab sharia képp koo xam ne réere nga say farata te làcc woo ko war nga sa bakkan te tooñ nga ko mu niroog lool li alquran doo wax ni fasalu ahla zikri in kuntum la taalamuun waaye waaye bu ngeen xamul laaj leen ñi xam ñu xamal leen kon nit ki waxuñu ko mu sonn di jàng téere yu bare bare bare waaye la mu toll mu xam cee farataam moo tax suñ mbéy daxa doon wax ni yàllaa di géeju njëriñ goo xam ne kas duy kat duy nañu bay fenget te ko dox kat yi jóg nañu ñi lay waa ñee jamu xel ñee gaaw a ñëw saana kum sox waaye kenn kenn jotu ko daan ni ngi xam tuuti ñi xam jupp ñi bañ a xam ñi xam ba far ëpp ñëpp xam-xam waaye kenn xamu ko ñëlee ngi daj tuuti ñi daj jupp ñi bañ a daj ñi daj ba daj lu ñu dul wax waaye kenn daju ko ñëlee ngi gis tuuti ñii gis lupp ñii bañ a gis ñii gis ba gis lu rawum xel waaye kenn gisu ko daan ni ngi jam tuuti ñii jam lupp ñii bañ a jam ñii jam bajam jam rabum ñëy ciy waaye kenn jamu ko daal ni dellul ca saw sasta bay nag bul yittewoo warum tool ak warum taw warum tooba yii day yàq mbay bàyyi ko daal ni toolam bi mooy bàyyi mooy faww sax ci ndigal mucc ak njariñ fawwa dib añ dib falit fexe ko xam-xam bu deesul jëfee kub sox bu takkaya sox bu yam daal ni xam àll boo bañ bay nit moom lii yitteem dëgg-dëgg mooy bu xam mu jëfe ko waaye mooy lu mu toll mu xam tey farataam jëm koo jëfe Cheikh mu saaka dégg ngeen ca taalifam boobee mu doon wax ne te xam ngeen ni nguur gu dul gu borom arash saxul fenn yàgg-yàgg dafay far daani soo bëggee nag nguur gu dul toxooti fa uxra na nga def jaamu yàlla mu di sa mbir waaye soo bëggee jaamu yàlla nanga ràññee farataak sunna doo ko jaamu ci mi ngir daan ne farataak sunna nag ku leen bëgg a na na taqoog waa ju xam ju xàmme ju laa biir kon nga gis ni kon nit ki moom yitteem yëpp la mu ko war a def mooy xam-xam daal di xam lu la nga xam ne moom la boroomam digle waaye dal di lu ci jëfe ko moo tax sëriñ bi daal di wax ni fa saari'u lil ilmi ajmaina gaaw leen yéen ñëpp daw jëm ci xam-xam waaye itam ñu gis ni sëriñ bi liggéeyam li muy rëy rëy la mu doon wax ci la jihaad mooy xam-xam nee na yaa jumlatan xad sallasu bi dalaalihim man lam yakun waladun lahu aw waalidu axrajtumuni naatiqiina bi annani abdul ilahi wa innani la mujahidu wa maqaalukum xaqun inni ujahidu sadiqun inni li wajhi llahi jalla ujahidu waaye ci lan laay jihaad inni ujahidu bil ulum wa bittuqaa abdan xadiman wal mu muhayminu shahidu kon li doonoon yitteem moom Sëñ Tuubaa mooy xam xam-xam ak jëfe xam-xam ak ragal yàlla te yàlla mooy jëfe xam-xam. mën a tënkee suñu wax rek ndax day mel ni doomu aadama bi am loo xam te ni euh, daf ko war di euh, bàyyi xel muy maanaam rus ak jomb ndax nit ki fekkee dafa am ku mu rus amaana bu gisul kooku mën naa def la nga xamee ne loolu la ko rusoo waaye bu jombee loo xam te ni maanaam daf koo jomb si digganteem ak boroomam. moo xam moo am xam-xam bi maanaam jomb see def euh, ñaawteef kooku bu xalaatee suñu borom kon kooku maanaam jomb naa def ngir suñu borom. tey jii boo juumoon boo juumoon si mooy julli gi xamoon ni ñuy indee baax da salaam wala xabla salaam kon nag loolu ñu ngi siy soññaat bépp julli rek waaye rawatina mbokki taalibe yi ndax am na am te ne gàcceel sa ab murit maam nekk sa ab jotaay euh, di jëf-jëf yoo xam te ne amaana ñàkk a xam la te am murit wax dëgg fa fu mu nekk dafa war a doon maanaam ambassadeur du sëñ ambassadeur du sëñ Tuubaa am murit maanaam warta doon warta nekk si jotaay boo xam te ne bu jëfee maanaam ñu xeeb ma waaye am murit dëgg dëgg dëgg mooy koo xam bu nekkee si jotaay bu jëfee maanaam ñu gën maa naw gën maa jàpp kon loolu maanaam nañ ko bàyyi xel bu baax a yi dañuy wax ni si la parole est d'argent le silence est d'or sëriñ bi ni law kaanal kalaamu fiddatan la kaana sukuuti zahaban nee na bu dee wax xaalis la noppi wurus la kon nit ki li war a def mooy noppi rek góorgóorlu jëm ci xam-xam kon kii jàng xam-xam ay tegginam mooy mu góorgóorlu lu baax a baax bañ a déglu kenn waaye moo xam ne fa axatihi bila nidaai kullaka fa lay fa lay laka sar wal tu jaw yax bat na naka daa del waar rek ci lu ñu wax mooy na nga ko jox sa lépp te bu ko desee sa dara waaye ngay xiif say guddi di di di ngay fob say guddi di xiifal sa biir waaye di maral sa bopp kon ñu gis ni nit ki mënta am xam-xam te tumuranke wu kon xam-xam moom tumuranke gu mitti moo koy am moo koy mooy tax nga am ko moo sëriñ bi ba muy ndaw loola di sàkku xam-xam ci kun kaadima da ko wax nëbbal say lor ak ay tiis ndax xam na ni tiis ak lor ci la ñu amee xam-xam kun kaatiman li durri wal buusa tanal qasdan wa taalul wa taalul jila yaa mutaallimu kon moo tax mu ne na ngay xiifal say bëccëg wasma nahaaraka bihi wal tutaa bi kullal jawaarixi ma atta ëdd bi nanga na na nga xiifal sa bakkan na nga xiifal say bëccëg waaye sonal say cër yëpp ànd koog ay teggin waaye wax ni ku ko sakkuwul ni ma ko waxee doo ko am من لم يرمه من لم يرمه هكذا لا يظفر منه بطائر كذاك أخبر ñii lañ xibaaree ni képp koo xam ni sakkoo nii xam-xam doo ko am kon nga gis ni kon nit ki moom mënta am xam-xam muk mukk mukk lu dul dafa dindi boppam ci adduna dëdd adduna ndax adduna moom ku ne xam na ni ko sëriñ bi misaale woon mooy jongamo ji jigéen ji sol yëre yu rafet nga xam dalay xemmem la boppam waaye su ay yérem rek nga gedd ko ndax da nga koy fekk muy aji rëy biir di borom katame di ko xasaw nee na ay tiflitam comme mbaala maal misaaluha ajuzatun daniya fi asbubin nafisatin xafiya yaxsibuha al ahmaqu xiina lam yara siwa libaasiha alladi qad xayyara gaaniyatan mustadrajan bi xubbiha bi xitbatin turdi alladi axabba waaye xata ida mabtasama qad labisat wajadaha mufaadatan qad xubisat awraa aynin zata zata cheybin muntina bu saaquha ka tuxlabin mustahdina kon kii sàkku xam-xam war naa góorgóorlu bu baax a baax a baax yittewoo ay teggin yëm ko ame nga xam ne xam-xamam booba dana ko jariñ waaye koo xam ne ci ak yaree ko lay sàkkoo xam-xam wala ak ñàkk a wekk ki koy jàngal bu boobaa du am xam-xam mukk moo tax sëñ ni bul toog mukk ci kaw ak ki lay jàngandool na nga ko jox yitte ndax man a alamaka xarfan foofu wa mawlaaka jëmm ji wax moom moo néew xam-xam néewi gëstu gàtt fasaaxa in uridu ila islaaha mastataatu wa ma tawfiqi ila billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaw kon jërëjëf sëñ Mohamed ci euh, leeral yi nga xam ni leeral na ko muy li nga xam ne moom moo jëm si njariñal sàkku xam-xam bu nekk rek euh, dégg nga ni ko indee kon maam nañu ko gën a bàyyi xel bu baax a baax rek xam ni euh, mboolem li ñu di jëf rek maanaam lay cës la maam Euh, xam-xam moo jiitu waaxiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin jërë ngeen jëf euh, mbokki internet yi mu mel ni comme ni ngeen ko gisee thème bi ñu indi tey ci waxtaan wi thème wu yaatu la thème wu am solo la ba tax na lu ci waay mën a wax maanaam du du du doy jotaay bi moo ñu tënk te it li ñu waajal ci bés bi yaatu lool moo tax euh, euh, amaana waxtu wi duñ ko mën a may waaye incha allah rabbi dinañ fexe ba amalaat beneen jotaay ci yeneen ay bés ngir gën a yaatalaat li nga xamante ni moom moo jëm ci li nga xamante ni moom mooy thème bi ndax thème bi tey jii maanaam kenn ku ci nekk muy gone ngay mag mën nga cee jànge waaye surtout gone yi comme ni mu ko waxee ni ko sëñ Tuubaa ci man kon xam naa rek dañuy daal di jébbale antenne bi ñi nga xamante ni ñoo nekk ci régie bi ñu ànd yéen ci yeneen plateau yi ak ci yeneen programme yi nga xamante ni ñu ngi koy am jërë ngeen jëf ci topp gi ak safoo gi seen télévision bi nga xamante ni moom moo di Majmahun Nurayni TV jërë ngeen jëf إن الذين إلى شرسار قد خسدوا زيارتي فارقوا الدارين أوزارا